injiili Mbàkke yaa gën ku la noonu dootul gën lii wër na yàlla إذ تقول waaye sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim moom ci génn xasaat rek la ko tëkk muy bismillah ñi fi ñi ak daara yallaaw sabi baqaa bihi li fii ka yallaaw tey xaadi bor lii lii nga doon jàng moo taxoon ñu yóbbu ko Kutumbe lii nga doon jàng moo taxoon ñu yóbbu ko Ndawbe lii nga doon jàng moo taxoon ñu yóbbu ko Biribiri lii nga doon jàng moo taxoon ñu yóbbu ko Conakry lii nga doon jàng moo taxoon mu taxaw fii ci waxu mën a sëri daal ni waat naa wàcc naa wàccaaleel naa leen waaye wàccaaleel naa képp ku ma yaakaar Ahmadou Borom jàng waaye li mujje muy asmaanu asmaa turu yàlla yooyu nga xam Cheikh Abdou Khadre Jeylaani yàlla Moussa nga faat taalibeem day fokki pays yàlla ya naa ko kii nga fàtte ak ruwaam tàggoogu ma ak ruwaam tàggoogu ma te boo ko bàyyil mu dundaat xam naa sa turoo woo xam si su ma ko waxee su المؤمنين ثم قبل أهل الكفار سيدنا محمد وسبوا الإنذار لجميع كما كما يديمون تقوى قيس ما دار لا سيما الخلفاء صديق ما قمر وسمان علي محمد قرار أيا bu ya kenn Muhammadu Rasulullah pour eh! yàlla may na ma doom ah! man Cheikh ah! Ibra ma tudde ko Muhammadu Rasulullah pour eh! yàlla mayaat ma doom ah! ma tudde ko Muhammadu Rasulullah eh! te mooy Muhammad te mooy Mustafa waaye dama gën a neex pour yàlla dama may seen yaay mu tudd Amina fa man maa bëgg Muhammadu Rasulullah nga di murid wala ngay tijaan wala nga sopp bàyyi laay seeti leen ma man Cheikh Ibrahima bëgg Mouhamadou Rasulullah waaye ku bëgg mooy Rasulullah da ngay barkeelu barkeelu barkeelu Baye Cheikh Abdoulaye Mbacke moo bëgg Serigne Touba لي سما لي سما جسد المدد خالي رسول قول يقول كله وكله نصي وآمنا يقول أمد يرام خير من ريما جرم ما مسلم جنبك جرم من شرح جنبك يا جنبما يا كار يا كار يا تبه يا تبه جنبما جرم سرين جيلي لن يكون تحوك wati da am da yaram am iliman dali wulen tumaar Cheikh Anta Mbacké yaram Cheikh Afia Mbacké iliman la moom dong moom sa jiite Serigne Touba ne ñëpp def ni lu ma doon maami Serigne Jiile bismillah doy do tambe da ko waro barke waaw waaw ana soxna Kumba kuréel mi. sëñ bi yaa ngi yëg borom daa sara. wéruwaay. gudd fan lool. ba ngay sagoy sëriñ Mbàkke Baaram. ki ñëw ci gox bi. jële fi geesmaan yi. jële fi sàcc yi. jële fi wuyu yi. noonu lañ fi jëlee. dóoru kenn daawoo waxtaan ak yow. nga sukk. honorable député Moustapha Mbengue doon sama xarit damaa doon sa géew waaye damaa doon xaritam moom Mbàkke ñu ñaan yàlla lool nag boo ma wax loolu dinaa wax ndax man bëgg ma gën a sëñ Touba tey programme yi man ne waaye yow sëñ Thierry da yow la jaamu la ci waa ñu laa yor di barki démb ba léegi ci laay nekk ci suba bi laay yëndoo yow man lay sax ba doy yow yu ma dem ndax li nga ma defal koo ko defal Mbàkke ñetti million lañ ma laaj ak téeméeri junni mun ma loolu dara yàlla am na ko sëriñ ci wàll na ko ma ñaanal ma ñëw keroog ma may ci sa biir kër gi ba way sax mu ba may dem yow ma deux cent mille ba nga may ci mairie yi wàcce ko yéeg defe naa ne jur boobu mi ngi ko fekk buntu Malika may joxe joxe bi nga ñëw woo ma ni ma defal nangam def nangam ñaan naa ko ci sama barke maam xam naa ne lii yàlla dina ko saafara fukki fan ak juróom laa gerte Mbàkke ñu jox ma 4 millions 500 balay sa buy Serigne Mbàkke maanaam ay li ngeen di defal. kuñ ko defar ku ne. <laughs> nga taxaw wax. ñu lay ñaanal yàlla gudd fan ak weer. moo toog ba yàgg ñu joxaat ma neuf cent mille caution bi xale bi war a i te kooku sama taaw la. ñu faj ko ba mu wér muus ñëpp. ban lay seet ñu lay ñaanal wér. waa xool xale yi la topp seen jiili. xool jigéen ñi la topp xool pour tànk yi. yi sikkar te war na taxawaale ci ban lay sax. ah mais lii na ko ñëpp yëg. Moussa Ba Mbengue. boo yëgal ne président. Macky Sall nee ko sëriñ kii ba nekk Malika ànd ak dongoom yi ak ak waa Kër Massar diggante Malika ak Kër Massar benn la mbéy nga baax lool nag lamp yi tàkk na courant bi ñëw na politique ma damaa wax li fi nekk parce que courant yi waaye ñu ne suma gox moom amagul wax ko fàll seen léegi ñeenti koñ ya benn dugub fa laal. def wax Coura yi ñoo ko demandoo ñu ne ñaan la doo am muy maire Malika muy maire Kër Massar lu waaye am te jox ko ci sëriñ Jiiri ah baaxul te xam naa di ngeen ko jox ñuy ñaan yàlla gudd fële mbir di sant jigéen ñëpp mbàkk yu mel noonu. ina taharata naka la wajabat war na la day naa si ñun zikran ci alxuraan wa sunnata ak xadis wa ijmaa ak dajeeg borom xam-xam. sabat sax na taarikuha xaar taarikuha bi aji bàyyi bi xayru hujrin su lu dul gàntu waxtu la yoone def na ko yuqtalu def def na def na rek def na bàyyi ko xaddan si lu dul géttam duuna ko firi si lu dul rayu kéefi faqila xelul izmir salaatu jul laa tatimu du wér abada ko ilaa biha niram àndalu wujub baha waram badaa dog na xatam ci suuf badaa sëy na badaa ko nag buñ ko defee muy lu gàtt jubluwuñ ci lu dut barab boobee ñu ne lañ fay jéem di ci góorgóorlu as tuut te ànd koog liggéey suñ tubaab bi muy seen muy gone bu ne boo xamut boo ñëwee ñu xamal ndax lii firndeel la ci te du lu ñu waaj moom nii mii daa bokk ci jàmbaar yi nga xamante ni nekk nañ foofee ca barab amaana nag wax moo metti te bëggoon nañu ay tut tànk yu bari yu fi jaar def ni moom waaye da ci da di am na ci ñoo xamante ni mënuñoo kàttanu mën a toog mën a def lii mu def tey waaye nag ñu ngi ciy sant bu baax baax. ñëw ci Serigne Djily fekk ci dara ñoru ko lu dul liggéeyal Serigne Touba Mbacké ñu bàyyi seen yitte yëpp. daal di ñëw ci bi ngir jëmmi Serigne tubaa ak xasaay bi waaye mënu moo ñàkk bañ a lim nag sama naata ko muy soxla su baax soo xam si bi di wóllare Serigne Jiiri Mbàkke muy soxla ngóore cuun Touba TV nga xamante ne si émission bu mag boobu muy def nga xam ne jigéen ñu bari ci lañ yeewoo waaye jigéen ñu bari ci lañ demee ci Siraatal Mustaqiima waaye jigéen ñu bari ci lañ defaraatee seenub ñu ngi nii teew na ci bis bi bàyyi yitteel yëpp ñëwal sax seen jiiri seen jiiri yaakaar naa ni ku la miin wala ku la mos doo dugg ci yow ndax Mbàkke sa naqoñ bi laa dara leen joo ji sëriñ Tuubaa doon wax Mbàkke da nga am lu bare bare man léeg-léeg ma kii rek daal di jël oto rek daal fii kii nga daal may kii ma daal di kiiyaat Mbàkke jërëjëf bu ko defee am na koo xam ne si faaw ma taxaw ci moom Serigne Mamadou ku defal Serigne Touba ah jërëjëf Serigne Mamadou waaw kay waaw kay aha kay Serigne Mamadou Serigne Mamadou ah yow moom doomu Mamadou am Mamadou nga doomu Mamadou nga am Mamadou nga Serigne Mamadou nii nga def bi wax na ma bis bii Serigne Mamadou Sow da koo kulóon nga xam ne fii daanaka moo def bis bi wala moo def bis bi waaye nag kii nga defal ba ren di déwén di nga xam ni demal nga koo xam si def si Serigne Touba seen jiir yi ni nga defal Serigne Afia mii maamam am na fay waaye Serigne Abdou Aziz mii baayam am na fay waaye Serigne Touba mii maamam. maam mi nga xam ne si mooy maamam am na fay Serigne Mamadou bu déwénee yal na say carte grise triplé ci barke Seexuna Ahmadul Xadim ca bu tig la ndax ndaw nga waaye alal dañ koy def nag fi ko war def ndax alal day jooy ñett ca ñett yooyu gis naa ne yow dalu la ndax ni nga taxaw fii kii bokk bis bii nga def ko nii ngir jëmbi Serigne Touba tey da ngay dimbalee ngir jëmbi yàlla ji say ma say ma yàlla baala ci barke Serigne Saliou Mbacké mi nga xam si gëmoo lu dul moom yaakaaroo lu dul moom waaye nag lan la bàyyi Serigne Saliou Mbacké mu defar say aajo waaye nag faaw taxaw ci maire Moustapha Mbeng Moustapha Mbeng di maire di député léegi dama ko déy ni ko ku am ko rek Moustapha kuy bàyyi sa nga gis sëñ bi ku jox cër sëñ bi cër ga waaye nag fii day barabu yokkukaay ndax première bi mu nekkee maire dafay ñëw am na fi ñaan sunu borom nangu ko mu del si waat ma di ko ñaanal di ko kalaane mu ni bu ma kalaane lenn rek laa bëgg nga ñaanal ko ma ne ko ah, mu ni ma damaa bëgg a nekk député ma ni sëñ bi mu ni dina nekk député mu nekk député nga xam ne maire député la ñaari fonction la yor waaye ren moom dama bëgg bu remaniement amaat balaa yàgg rek nga xam ne da ngay doon maire doon député doon ministre waaye amin waay ku ne amin yàlla ko fekke ku amin yàlla ko fekke sëñ Moustapha ñi nga def sëñ bi nga xam ne at mi passé élection ñëwagul bi ñu la joxee kàddu da nga ni sëñ bi man leen rek laa bëgg mooy monsieur le président Macky Sall am deuxième mandat sëñ bi ñu ne dina am deuxième mandat. ca booba ñetti at des ci yi ñu ñëw ren mu gagné leen premier tour Macky Sall ni garaas gi raw kon fii nga ñëw xam nga li fi indi waaye man nag leen rek laay dagaanaat Kër Massar nan la joxaat léegi yi. dolliwaat la magi dolliwaat la nga dolli ko waat bu nga fekk fi yëf yi gën a saawaan baawaat ci barke sëriñ Afia ndax at mu jot ma la ko fi ñu takkal la ndomba tànk kon ren dinaa la ko waxaat ñu takkal la ndomba tànk Moustapha sunu xol seet na ci yow waaye li ma gën a neex ci moom mooy daa am ak ràññee kilifa koo xam ne foo ko nuyoo mu jaar ci sa tur jaar sa sant wax ak yow ku yàgg jël ay engagement ca engagement fu mu jël matale ko jërëjëf sëñ Moustapha njabootu sëñ sëñ jiiri gaa ngi nii yaa ngi nii yaa ngi Kër Masar sëñ jiire ji boo bariwut nii rek nii rek ndax la sëñ Abdoulaye waxoon rek moo fi nekk njabootu sëñ Touba gii ñi mewul bor dama amul pay ku leen lebal lu fay la kon jërëjëf bu ko defee du ma sori ndax man sama yaram tàngagul bu ko defee dañuy jox délégué quartier muy Serigne Mouhamadou Fadal borom nit ñi borom xayra borom booba borom kàddu balloo ji borom di day sàmm bàyyi wóor bu sax xambaar ak tayal ak fàttamaale ak alaaji baara min la tuddee nga ñëw fii. loolu àdduna te di nga toll yomal moom lu yàlla bind la te yi moo am Serigne bi mi ngi wax ne cant gi mu ngi ciy dolli moom. doyul sax nag na waaye day dolli rek muy kilifaam kii ci biir kër di nijaayam seen Cerno nga xam ni moom muy juróomu jigéen ñoo bokk ndey ak baay muy kilifa boo xam ni ku mën a ko fi njaboot yi Serigne Saliou Mbacké da daan wax kilifa day nangoo wuti soo wutee ba noppi indi te bu ñuy seddale nga gën cee tuuti hmm? waaw man ngaa ñëw sax ci kër ñuy joxe añ nga mel ne da añ ca àll bu ba suur ñëw ñoom ñaari tim daal di taxaw ne ngir bàyyi njaboot gi ñu lekk bu suur Serigne Saliou ma ko wax de te ku ko dégg nga xam ne ay waxam nee na sëñ Thierno loolu lay def lu mu liggéey yamale na ko ci njaboot te man loolu xam naa si dara ndax jàng yi muy def dëkkam at mu jot man maa koy fanaan tey day yëkkati alal bi du jeex jox ma boole koog def na war ca jàng ya lépp boole koog yor kër gi yor fële te ñëpp ak njabootam a fi. sëñ Thierno jërëjëf sëriñ ji bi day fàtte la la bàyyam ba defaroon man de ci yow laa déggee ci saw làmmiñ nga ni woo na ma ba ma ñëw sëñ Abdou nga wax ko loo soxla mu ne la ana këyit yi nga ne ko mu ngi nii nee na mu ne la dama def ko fan koy def rek te doo xaar. a badi ak bëti leen bokkuñu loolu sañ-sañ la man-man la jëlal say def fa ñuy def rek dem toog. sëñ Thierno fi mu ne nii li muy lijjanteeg li muy def bari na sax ñu ko ëpp di jaase te mënuñu kon nag ku la eh? suñ ko la dee ko wooyee ñoom damay wax ne li yàq dëkk bi yëpp mooy yow yàlla juróomi dërëm la la séddee nga ni kenn du fi amee fukki dërëm lu tax waaw da ngay bokk nit ndey ak bàyyi mu mën a jënd téeméeri kaat kaat yow sambaraay bi donc bu yàqoo mënoo koo jënd waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne du yor dara waaye foo ko fekk day rafet xol bi moo set. yawma laa yanfa'u maalun wa laa banuun illaa man ataa Allaaha bi qalbin saliim mooy sëñ jiili sa borom def ba mu sant Mbàkke di sëtu sëñ àll ñëw fii ñu koy sukkandiku garaawal nga ñu ko fi àll yaa ngi sonn xam nga lu lay dal xooloo bu man lam yuhibbunii Allaahul jaliil wala yulaaquuna maalan wala baaba looloo lay dal foo toll sa xol dina xëy ndax loolu par force lay am fi ne man ku ma bëggoon lakkaloo ay njaago wala ay joolaa da nga koy mu bëgg a dee waaye moo ko laal ndax mënu ma te bu fi mën a joolaa ñëwee laa ko kon sëñ Thierno jërëjëf jërëjëf ma di sax la ñor waaye sa rakk di sa lépp moom it sëriñ bi koy bàyyi xel te di ko ñaanal te di ko sant sëñ Maam kenn fàttewu ndax nit amul lu ay mbokkam waa boobeen ñi nga xam ni ñooy ñoo jógee boobeen ñëpp di maamam ci jur way juróom jigéen démb lañ a si ak soxna ay umpaañe ba ñëpp kenn desul kon sëriñ bi nee na leen di ñaanal te ku xam sëñ Jili xam ne moomee lay kër maam waaye nag sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo sëriñ bi ñoo bokk soxna day jóg sëñ Cheikh nag man na naa ku ku indiwoon kaamil léegi dara jëy sëñ Tuubaa ñeme naa waat ne moom murit saa def la yombut nag ndax sëñ Baara Jenn moom la Cheikh Issa Bara damaa dégg ñu naan la Mouride Sadio ñu ne ko ak ñu koy wax de mu ne donc koo nangoo mu ne ko am ah baat ci jël na xaw mu ne ko sëñ Bara xam nga luy Mouride Sadio la mu ne ko xanaa mu ne ko Mouride Sadio koo xam ne buñ tëjoon ba xaaju suñ borom ñu dégg kàddu yàlla gi muy wax ne kenn ku ne la nga defoon dina feeñ léegi léegi Mouride Sadio mooy kii yàqam ci bët set ba leen defoon feeñ kon lan Mbàkke jërëjëf yow tax nga ñàkkatul bañ la amee ba tey ñàkk duñ dara ñoo ngi jéem a gëstu xam-xam yàlla ñuy jox mbubb yu rafet ñuy sol di ñu jox ñuy jàngi di amul xaalis di yóbbu seen kër. mooy kilifa gi fi woote seen jiili ma ne Daaru Salaam yi bari na la waaye seen nekk délégué de quartier seen jiili nekk kilifa yombul kon Moustapha di maire bi te Moustapha xam ngeen ne Serigne lu mu am ci Moustapha la jaar ba am ko kon maa ngi sant bu baax te gërëm. tey ñaanal seen jiili lii nga xam ne nii woote na ko yàgg yàlla na ko yàgg di woote ndax suñu gox bi ñu nekk nii dañ koy am imaam boo xam ne nii di imaam Fodé Ndiaye ñàkk ci ñaan lool di jàppale ñëpp di dimbali ñëpp seen jiili mi ak seen ki nga xam ne nii mooy imaam benn lañu lépp loo xam ne nii imaam jóg na di ko dox baa mu koy defi dina ñëw ba ci moom waxtaan ak moom kon loolee ak déggoo la lépp lu seen jiili di def dina ñëw ci moom waxtaan ak moom. kon loolu ak déggoo la kon nangeen xam ne fii di Daaru Salaam extension jàmm ngi fi waaye ñaan nan mu yokk ndax ni ko waxee sëñ kii li ñëw fi am lu fi nekkal loo xam ne nii dafa doy waar gendarmerie police di dëri dëri loolu lépp ñëwatul loolu nañ ko sant sëñ kii ndax kat dañoo wax ne ab dëkk xam ne ni ndaw yi jub nañu nañ dal xel ya dal te liñ fi woote ak liñ fi wone dal nam xel gune yu ñoo jàng léegi alxuraan gune yi ñoo jàng léegi xasida te alxuraan ak xasida xam ngeen ne niñ koy mën a waxee am na ñi jàngkat yi li ñuy waxee ñi ne dafa mel ni nga jël dugub def ko ci bool ub ko woote ne ñëw leen xéewlu kee jël dugub defar ko ba mu baax boole ca def ca ndawal lu baax def ca trois fois la ñëw ne ñëw leen xéewlu kon alxuraan ñi ngi génnee xasida ci biiram loolu yàgg nañu koy wax muy nekk loo xam ne ni lu wér kon buñ ñu fi lu dul alxuraan ak xasida ci sant Serigne Touba sant gi ñu sant Serigne Touba ñun nii dañuy ñaan yàlla mu yàgg di am ndax 1996 bi may ñëw fii fii dara néew fi woon dara néew bi ma fi dëkkee bokk yu ñëw ñu ne fàllu day dafa tàggoog sagoom moo tax mu ne sama benn doomu bàyyi daal di ñu jël si waxtaan ak man ne ma dama bëgg nga def tuxu yëmbal ba nit ñi bare ma ne ko de xam naa da ngaa waaye maa ngi ñaan ci yàlla yu dégg suñu si Sëriñ Tuubaa lépp lu ma yàlla yi may mu fekk ma fii kon yaakaar naa ne su ma toogee bay ñuy woote ay cant ci koñ bi wax naa bu bëri ki démb rek bi imaam wootee bisam bu fii ci koñ bi ma ne ñu fiy jàng lu war a mat juróom fukki kaamil ci benn te foofee laa noon falaay toog ba Serigne fekk ma ko waaye waa kër Serigne Touba fekk ma fi di woote te fii toog naa fi ñi fi ñëw ci sant Mbàkke sa tubaab fa kàll dañ koy dimbali loolu mun ko amee dañuy wax ne bu lëkk lekkee aloom na ko gërëme coy kon maam Thierno mi ngeen tudd nii. moom ci jëmmam moo nu may sëñ jiili fii kon maam Thierno yàlla na fi yàlla te ni nga fi nekk woon ba sëñ li ñëw fekk la fi ñuy am lii dañuy sant bu baax a baax a baax di gërëm li suñu xol bee ba mënuñu koo wax waaye na ngeen gën ne sëñ Moustapha Mbengue ñii toog di député maire daaw bi nga xam ne ni ñoo ngi fii booba rafle woon nañu courant courant bi ñu amoon koñ bi dañuy taxale waaye ñaari poste courant benn bu ci nekk taxaw na te gox bële ak bii courant ba ci la ñuy taal nii sëñ Cheikh Diagne bi nga xamee ni nii woo naa mu nekk Sénégal def ma ne jox ma numéro sëñ ji li ma woo moo woo sëñ ji ñëwal boppam wàcce courant bi ji joxe nii ci la jóge kon kookee xam nga ne nekk na koo xam ne nii nee na nag ak ñaan dong wala soxla te kookee bañ demee moom lañ Sénégal booleel moom la ñuy waxal moom la ñuy waxal ba nga xam ne nii dañ nañ porte yi. kon noo ngi koy sant di ko gërëm. kon kilifa njariñ rek bu ko defee ñuy lim Serigne Ibrahima Kamara moom it teew na fi ànd mag waaye du ma def rek lu dul jox imam mu daal di ubbi ñaari kàddu rek sant mbooloo mi ñaan na leen bu ko defee ñu daal di dugg nag imam Fodé Ndiaye bismillah imam Ndiaye teew na moom it bàyyi yiteem yëpp. def délégation bu mag waaye jotaay bi lépp xéewal la jotaay bi lépp yërmande la bi lépp fajug xaajo la jotaay bi lépp njëkkal la ndax nag yu mel nii ak kilifa yu tedd yii képp ku koy teewee. nga jógee fi sa aajo fajuwul ma ne ni nga ak ni nga waaye boo xamee ni nga ñëwee ni ngay ñëwee ak ni nga war a toogee boo fi jógee sa aajo faju incha allah eh, gannaaw loolu ñu ngi nuyu kilifa bu tedd gi nga xam ne moo waral jotaay bi muy sëriñ Jiili Abdul Aziz Mbacke sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay siyaara di jël sunu nuyoo nag di ko jox nga tegal nu ko ci loxo sunu maire sunu député mooy Seyd Moustapha Mbeng mi nga xam ne moom la yàlla séddee fii ci gox waaye yàlla séddee nu ko ñun yàlla baaxee nu ko ñun kon ñu ngi lay jox nuyoo boobu nga joxal ñu ko ko moom ak ñi mu seqal liggéey bi yëpp ba assemblée kon ñu ngi nuyu te buñ ko nuyoo moom nuyu nañ président ndax moo fi teewal jëmmi président waaye moo fi teewal président ci lépp nag loo xam ne lii lu président di soxla ci doomu aadama yi fii moom mii moo fi nekk euh, moo ko fi nekkal kon ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko jox maqaama di ko nuyu di ko sant di ko gërëm di ko wax ne ko ñëw na fi mu war a ñëw. waaye ñëw na si béréb boo xam ni manul dem ci béréb boo xam moo gën fii manu ne kon fa tabarakallahu sant yàlla bu baax bi nga ñëwalee sëriñ foofu nag dama si profité ngeen baal ma tuuti lu mel nii bi nga xamee ne yàlla dogal na man ma am ko te moom teewul sama doom Ibrahim waxal na ko fa wax joo xam ne ju rafet la ca soog a yëgee li xew kon euh, sëñ ñoo ngi métti tiit lu loolu waaye di la bokk di wax ne ñoo ko bokk loola dal ñun la dal la métti ñun la métti waaye sa bànneex mooy suñu bànneex yëg nañ lépp te jéggal nañ lépp fa tabaarakallaahu kilifa gi nga xam ne moom nga waroon a yebal it yàlla dogal na li ko dalit yëg nañ ko mu métti ñu lool tabaarakallaahu kon li tax ma wax loolu pour nga yëg ne yëg nañ la waaye nga ñu nga yëg ne it sa ñàkk gi ñëw nangul nañ la ko ndax la tax moo tax kon loolu rek lañ ko doon wax bu loolu paasee tabaarakallaahu euh, sëñ bi yàlla dafa dogal bi ñu yàlla boole ni seen jiilit li ko fi yàlla ëndee mooy lan mooy defar te nag mu si dem kattanam am nañu ko ji ñu si jiitu léegi wax ko te defar li si gën a am solo mooy ay ndaw ndaw dafa am solo te lii muy def ci ndaw yi mooy ñaari mbir te ñaari mbir yooyu lu am solo la mooy lan mooy jubal mooy jàngal daf leen di jubal daf leen di jàngal damay ma ko ko defee loolu lu mel noonu wax daanaka fusu sa tasul si xaar sëriñ bi moo ko bind yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu ani huda wa bil ulumi staxilu yéen kay fastaxilu bil hifsi wa tilawa wajtanibu majalis saxaawa majalis saxaawa boobu nag moom xeex na ci lu mu ci man ba xam ne ndaw yi fa tabarakalaaw ñu ngi daw ci jataay yu bon yooyu di ñëw ci jataay yi kon fa tabarakalaaw suñu jigéen def ñu ngi sant ñu gërëm di ñaan yàlla yàlla yàlla baax kon ñu def fatiha falaqe ak naasi tëjee ko salaatul fatiha wala salaatu bu waaye di jëfandikoo mu tëjee ko loolu ñaan yàlla yàlla barkeelal ñu jataay bi yàlla barkeelal ñu réew mi ak képp koo xam ne ci yaa ngi ci yëngu ci loo xam ne luy defar réew mi. bu ko defee sëñ Mamadou Diouf moo la ñu jox kàddu bi mu daal di ñëw fii wax ci délégation sëriñ bi ak waa kër gi bu ko defee ñu déglu ko ca bàyyi ko xel bu nëbbee rek lu ca topp rek laaj ko ca topp la. mais xam naa ne ak wóllëre moo ci ne sàmm wóllëre dinaa jégalu nag ci kàddu yi. ndax lott naa lool ci taxaw fii di wax lu jëm ci sëñ Mor Talla di ko waral meññeetam meññeetam dafa ne ci biir baas bi lu ma xam ci moom mu gën ma koo xam leneen li ko waral moom mooy bokki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal mboobee ñu ngi nii toog lu ma xam ci moom ñoom ñii ñoo ko gën a te teewut bi yëkkati na diiru ñaar fukki at yi ma moom ku ne mu dugal ma ko bawol may utiliser boo xam ne maa nga mu téye mi ci loxoom dugal ñu bawol wanele ma ak ay ñoñam moom sëñ daal ma moom lu ma ñaar fukki at mu laax gisatuma ko mu bàyyee ñu sëñ daal ñu sant loolu nag sant ci suñu borom bu baax a baax mu ñu bàyyeel lu ko ñu naan cam doo jaaxu koo xam ne ñëpp a ko bëgg kër bu ne rek ci biir euh, askanu Mbàkke bëgg nga am ku mel ni sëñ daam ci sa biir kër kër bu ne bëgg nga ko am sa biir kër tey jii moom moo fi waroon a toog sunu borom teg ko li mu ko teg mu nga am ak màggal daaru fas woo tey waroon na dem daaru muxti tey tey ci suba loolu lépp daf ko dajale woon dëxañ ko ne du tey mu ñëw fii ci bés bi ñu toogee ba mu xaw ak tuub mu woote ne fi dootul mën a ñëw ndax sëñ Mamoor Mbàkke mu sëñ mu xalaat mu sëñ avocat daf ñëw yenn si kër nga ñaari loolu moom moo tax moom ñëwut wante la doon pexeem yëpp ak yitteem ak soxlaam lépp lépp moo doonoon ñëw féete fii tey toog fi jàkkaarloo ak euh, sëñ Jéeli ndax gis na kóllëre gi nga xam ne moom mooy ni ñu seq ñoom ñaar Mbàkke ñu ngi sant bu baax a baax bokki mboobeen yëpp ngi lay sant cant goo xam ne gi sa diggante la ak ñoom sa sa bokk nga nga bokk ak ñoom sant la it ci ànd ga nga ànd ak waa kër sëñ Modou Fall Mbende ci diggante euh, Mboobeen Kër Maawo jàll ci kaw bokk gi ngeen fa bokk wëllëre gi ngeen fay dox ñu ngi la ciy sant bu baax a baax ñoom ñëpp. lii rafet na am na solo sama maam ndax ne ma booy fasante kóllëre la nga fasante kóllëre ak séeréer ndax bu waaw bu jàppee duñ bay ca duñ fecc kóllëre fa nga jógee nag jaxaw siin xam na Serigne Touba ndax buur siin ko ma doofee kon jërëjëf yàlla yàlla fay la bàyyi nga ci kanam njaboot bi ci barket maam Cheikh Ibrahima Fall baabi muridina injiili Makka yaa gën ku la sopp dal di gën ku la noonu dootul gën lii wër na yàlla